ilimaan bay jiite faaw nekk jullit ku fekkoon ak yéefar bu koy jiite lu yàgg yàgg gannaaw ba mu door a xam ne moom kat du woon ab jullit ak yéefar rek la woon kaaw day baamu lam koy jiite lépp lépp ilimaan faaw góor lay doon du doon jigéen du doon it li ñuy wax ngulingaana maanaam koo xam ne yàlla ko defal sawukaayu góor ak sawukaayu jigéen te amul beneen màndarga bu ñu koy àttee ni góor la wala jigéen la kooku faaw dañ koy jiite te moom ci boppam du mën a jiite limaan ji jiite faaw mu ànd ak sagoom ak dof su fekkee ne mën naa tegale julli gi na mu tegaloo te du ca jóyit du tax mën a jiite kenn su leen dof boo xam ne day tane ka daanu jamoneem tane nga xam ne dof gi dikkalugu mën naa jiite waaye jamoneem daanoo moom du mën a jiite tey jiite bu fekk mu doonoon maamoom ci julli googa mel ne ñaar mbaaloo fi ñaar bu ñëwee ànd ci julli ilimaan ji kenn ku ci ne buy firmalee yaay fay lañu rawee kenn du ca mën a jiitu kenn topp ca moom kenn koy day fay rek borub boppam ndax ñoom ñëpp xasee nañu nekk maamoom ba noppi wala sax boo gisoon kenn kuy julli rek nga tàmbali rew ci moom di ko téye da toll ci jumaa ja yow yaa ko yëgut sa julli du baax ni ki yow dangaa tux te moom tuxut muy toll ci jumaa ji nag yow nag sa tux tax xamoo ni jumaa ji lay tolloole du tax julli ga baax koo xam ne wóor na ko ne amewul ak laab bu noppi nag mu dem di jiite def na lu araam ndax kay sëñta song rek julli te amewul ak laab rawante na nag mu taw ko di jiite di yàqal ñooñee ñooñee mu jiite nag koo xam ne xam nga ne kee doon jiite moo ko tey amutoonu laab sa julli du baax bu fekkoon ne ki leen a jiite ba àggal doo leen a xam ne lu mel kat wóor na woon ne amul ak laab kon ñoom ñëpp dañu daal di war a julliwaat su ko nëbbee noonu rek nag waxu leen dara dañu leen gàddul bàkkaar gàddu seeni julli ndax moo leen jiite te amatug laab ba noppi ñëwee leen amoonug laab ndax ñoo ñu mën a julliwaat bu leen jiite woon jàpp ne amee nag laab moom mu jullee ba fay moom door a fàttaliku ne moom kat amewutoon ak laab walla muy jiite ba ci biir mu fàttaliku am toj walla am toj rëcc ko génn ci moom tam daal di bàyyi sa saasay saas kon moom rek la julleem di yàqu waaye ñoom doon jiite seen julli dara sikku ca mën nañoo kenn kennoo ku ne àggale si julli bopp mën nañoo bàyyi itam kenn jiite ci ñoom ñu àggale waaye nag bu dee jiite ba ci biir mu fàttaliku am toj wala am toj rëcc ko bàyyi ga muy bàyyi fas saasay saasa bañ a defaat dara ci julli ga ñu ko cee roy loolu la koy tax ñoo ñu ànd ak moom seen julli di yàqu waaye gannaaw ba mu fàttalikoo toj ma ba gannaaw ba ko tam rëccee bu defoon dara ci julli ga rek ñu ànd ci ak moom ñoom ñëpp yàqule mooy ñu ànd ak moom di julli seen julli yàqu na na mu yàqulee moom ilimaan ba tey kat maa moom ki ilimaan di jiite bu fekkee laata muy ànd ak moom di julli fàttali ko woon na ne ilimaanam ji tojle woon na doon di sax da koo fàtte woon moom it moo tee mu fàttali ko de kon mu xamal ko ne ko tojle woon nga fàtte ko di ci jëriñ dara du tee moom itam julleem yàqu mel ni moom ki koy jiite gisoon na mu jàppoon waaye gannaaw ba it gisoon na mu laaj ndox dem ca wana wa te ba mu génnee ca wana wa gisaatul benn yoon mu jàppaat te moom te boo moom benn yoon bu jàppaatoon dana ko war a ñëkk mu gis nag mu waaji julli mu ne ah danaa ko fàttali ne demoon na ci wana wate jëppoon a jàppaat de waaye nag xalam fàtte ko ba jotu ko fàttali ne ko yow kat jotoo na jàppaat mooy tax du moom maamoom mi su ànd ak moom kookee jiite ko ba ñu sëlmalit du tax julleem baax moom maamoom moo ko limbaan ba ñoom ñëpp ñoo bokk julliwaat te nag bu fekkoon ne xamutoon te loolu dara gisu ko woon bu dem ca wana wa génn ñàkk jàppaat mbaa dara ki da koo jiite rek ba sëlmalee nag mu ne ko man kat fàtte naa ne demoon naa ci wana wa te ba génnee jàppaat tuma woon bu dem loolu rek moom ilimaan ja mooy war a jàpp te julliwaat waaye maamam ma moom ak julleem baax na ndax ilimaan ji bi yoon jiite gam jiite te amutam jàpp teyu ko fàtte rek la woon te fàttaliku kenn fàttaliwu ko ba tey nag bu fekkoon ne da ko jiite ba ci biir moom maamam mu door xam ne ilimaanam jiikat toj le na gannaaw ba mu yëlee toj ma moom bu yëyee topp ci ilimaan dara lu néew néew rek julleem yàqu na moom maamoom balaa wax jee gudd mën ngaa takk rek ne bu ñu nee lu yàq jullit ilimaan yàqaale na jullit maamoom dañ cee génne yaari masala yii benn bi mooy ilimaan fàtte woon ne amenam toj ba mu nekkee ci biir julli ga mu daal di koy fàttaliku ci des mooy day julli ba ci biir am toj rëcc ko yooyu yaar su dalee di bàyyi fa saa sa julli ga moom ilimaan kon maamoom moom moom julleem dara si kucca dañ ko waxee woon bu leen neexee kenn kenn bu leen neexee kenn ñoom jiite ñu àggale waaye nag ilimaan ji bu ko teyee amul ak laab daal leen di jiite day yàqule ñoom ñëpp ñu yàqule su fàttalikoo ak ñàkk laab ci biir julli gi wala ak ñàkk laab dab ko ci biir julli gi te teewul mu jàll ci julli ga it buñ ko toppee ca lam def rek na ilimaan yàqulee noonu la ñu ànd ak moom di yàqulee maamoom itam nga jàpp ne su fekkee laata muy ànd ak ilimaan xamoon na ne ilimaanam ji anuwul ak làpp wala day ànd moom di julli ba ci biir mu door koo xam te teewul mu jàll topp ko lu mu def mu def ko lu ko topp lu mu néew néew rek julleem daal di yàqu moom maamoom na jullit ilimaan yàqoo dafa jàll ci sarti ilimaan mu ne ilimaan bu mu tëlee ponk boo xam ne ka muy jiite moom mën na ko mel ne koo xam ne mënta rukkoo mbaa mënta sujjóot bu mën a jiite koo xam ne mën naa rukkoo mën naa sujjóot ku luwu mënta jàng faatiha du mën a jiite koo xam ne luuhut mën naa jàng faatiha ponk yépp noonu la mel lu ci waaye tëli rek du mën a jiite ka ko man suñ bokkee nag tële ga ku ci ne mën naa jiite moroom ma lu may nag ku mënta jàng faatiha ñu waxoon ko ne ko da ngay seeti ku mën a jàng faatiha mu jiite la mu dem nag fekk ku tëlee jàng faatiha ni moom mu jiite ko kon ñoom ñaar ñëpp la seen julli di yàqu ndax ñoom dagañ tële nañ ci jàng faatiha dañu war a fekk ku mën a jàng faatiha mu jiite leen balaa seen julli baax rek gisuñu kenn ku mën a jàng faatiha ku leen mën a jiite bu dul loolu rek kenn du ca baax leen julli su fekkee ne dafa tële ci rukkoo mënu ci dara ba am tële ci sujjóot mënu ci dara moom mën naa jiite bu mel noona tëlee ne moom waaye koo xam ne jëliwu dëgg-dëgg rukkoo mbaa sujjóot lu ci nekk da koy junjal yam fa mën a yam ñooñu ñaar kenn du ca mën a jiite moroom ma su fekkee ne ku ci nekk booy rukkoo ak booy sujjóot da nga junj rek bu dee sëgg sëgg ba fa mën a yam bu dee ci sujjóot ba bu dee ci rukkoo mu sëgg ba wàññi ca dara ndax bëgg sujjóot ba gën a suufe ndegam moom junj rek la ñoom ñaar kenn ku ne di junj du tax kenn mën caa jiite morom ma ndax ñoom tëliwuñ dëgg-dëgg am na luñ mën ca rukkoo ak sujjóot rukkoo ba àgg ak sujjóot ba àgg luñ mënut waaye am na luñ ca mën lañ ca mën nag mën nañ caa wuute lool lool moo tax du nangu kenn ka jiite morom ma ne buñ bokkoon tëli rukkoo ak sujjóot ku ne mën a jiite morom ma ba tey koy jiite mënta ñàkk xam lay tax julli ga baax kuy jiite faw war naa xam lay tax julli ga wér muy sart julli yaag ponk ya waaye na ñëw dañu andi foofu ak jàppandal loolu wax ne su xësee xam rek melaw julli ga ba mankiwul dara su jiitee jullee noonu te desaatul ca biir leneen lu yàq te yëguñu ko kon julli ga dana baax ndax li hadis ba ne woon sallu kamaara ay tumu nii usalli julli leen ni ngeen ma gis rek may julli jàppatal googu ñu wax ne kay julli bu xësee xam rek melaw laab ga ni ki melaw jàpp ak sangu farata xam itam melaw julli ga te ni ngi ko jële ci borom xam-xam bu wér rek ku jiite itam nga daal di baaxle ñàkk xàmmee farata ak sunna wala sax bu demoon ba jàpp ne lee di farata sunna la mbaa lee di sunna farata la te ca wàññi dara tutee ak julleem baax na kum jiite itam baaxle nga waaye nag boo dee xool saa ba ne moom day wax ne lay yàq daal mooy mu fekk loo xam ne farata la mu jàppee ko sunna loolu daal moom dafa jaadoo di ko lool de sax mu fekk lay sunna mu jàppee ko farata moom mbaa rek mu xam ne julli gi am nay farata am nay sunna te xàmmee wut lan mooy farata lan mooy sunna moom du ca wàññi dara te sax loolu doogu fara aayal daal di wax ne di xilaafi man yaataqidul farda sunna xumaa daa farata moom aayal ko du taxit moom bu jiitee itam jiitara baax waaye nag daa mel ne ka jiite bu amee ko xam naa bu baax a baax def ci biir lu yàq julli ga te du ko yëg daal yomb lool te dama ne bu fekkee daa xam rek meloo julli ga jële ko ci borom xam-xam bu waratam balaa julli gaa baax day mucc ci dara lu ko yàq ca biir loolu daa mel ne bu xam ne war gën rek mën na caa daal di am te du ko yëg bokk na ci sarti koy jiite mu jàng alquran jàngin wa wér bu jàngee jàngin woo xam ne dafa néew lool lool ba génn fukki anami jàngin yi bu ca boolee na mu jànge ma ni su ko dëppaleeg nañ binde ca kaamilub Usmaan ba kon julli ga yàqu waaye waaye nag na mu jànge lu mu néew néew ba génn fukki anami njàngeen yi waaye ku ko seet rek mu jamtalu nañ bind ca kaamilub fayëf naa Usmaan ba kon njàng ma dal nay wér bu ñu nee alqiraatu ashaadatu dañ caa jublu ma wara al xashra fukki njàngin yooyu lépp lu ko génn rek dañuy jàpp ne njàngin wu néew la wu jàdd la dafa am al mushafu al xusmaaniyu mooy sayidna usman ba mu bañee alquran tasaaroo tasaaroo boo xam ne kee da koy jàngee ne kee di ko jàngee ne kenn du ko mën a takk dafa bindul woon benn kaamil boo xam ne moom la tasaare ci gox ya gënoon a siiw booba ci wàllu lislaam ñëpp jàpp ci njàng mooma bàyyee ci def tey jiite na day fexe ba la muy jàng dëppoog lañ bindoon ca kaamil boobee Seydina Ousmane tasaare woon kaamil ba daa amutoon luy nuru ay tomb walay masque mbaa dara yaxub kese rek la loolu mooy tudd ar rasmu gannaaw bi nag bu demee ba mëni su ko ñàkk wutal ay tomb ak ay masque ak luñ koy xàmmee lañ door a xewal tomb yeeg masque yooyu yëpp nag nett li bu ne nag day tombee ka maase na nga xam ne moom lay jànge saa yoo xam ne rek na mu jànge ku ko seet mu jamtalu na njëkkoon a rëdd ci kaamil boobee dal nay baax lañu bañ rek mooy mu jàng njàng moo xam ne loo ko seet seet doo ko mën a dëppaleeg la nekk ca kaamil boobee mel ne njàngum Abdullah ibnu Mas'ud njàng mu wér la yonante bi ci bopp rek moo jàngale woon saxaaba ya booba ay njàngin yu wuute wuute waaye nag gannaaw biñ defee kaamil bee ba tasaare ko moom kay jiite bu jàngee njàngum ibnu Mas'ud moomu njàng ma du wér li ci borom moom day wax ida nuudiya li salaati min yawmil jumuhati moom day jàng fam doo ila dikrillah moom jàngut fasxaw ila dikrillah ba tey laa takunu kalladina aadaw muusa fa barra'ahu llahu mimma qaalu moom day jàng fa bari'a mimma qaalu nga xam ne boo ko dee seet maanaa yëpp benn la waaye nag ndegam kaamil bii nga xam ne moom lañu tëral ñëpp di ci roy ñëpp di ci sottee njàngin yu wute naa ak moom rek dañ koy tuddee njàng mu jàdd njàng mu néew nga xam ne koy jiite dañuy aaya mu jàng moomu njàng koy jiite bu jàngee njàng moomu ku mu jiite rek maanaam koro ci moom rek mu jiite la sa julli du baax neenu nag bañuñu nga jàng di jaxase ay nekk li yu bokkut mel ne booy jàng yenn baat yi nga di ko indee ni ko warsh di jànge yenn yi nga di ko indee ni ko xafs di jànge bu dee ci jàng rek moom mënees na ko dara nekku ca waaye bu dee ci bind nag moom faaw nga topp benn riwaaya bind ca kaamil bi boo ko deful rek jaxase lu bokkut ne booy bind kaamil benn nga tënku ci wars mbaa ci xafs mbaa ci beneen riwaaya waaye du jaxase nag ci mbind ma moom mbindum riwaaya bi ak riwaaya bi bu dee ci njàng mi moom jaxase riwaaya yi amul wàññeen moo xam day julli moo xam julliwut loolu nag xéewal la ak jàppandal la lool loolu nag ak jàppandal lool la ndax ñu bare bari tënku ci benn riwaay rek sàmmoonte ki sartam da leen di jafe lool nga xam ne mën na ne xas laay jàng wala warsi laay jàng te du tee muy jaxase riwaaya bee ak riwaaya bee waaye nag loolu wàññi ci dara rek moom kon baax na mu ne bu dee kay jàng day yàq njàng ma wax ji gën a wóor mooy ndegam tëyu ko rek moo xam ci fatiha la moo xam du ca fatiha ja du tey julli gaa wër dañ caa wóote am ñu wax naa ak nu mën di yàqe daal moom julli ga dara sikku ca am ñu ne bu dee yàq ca fatiha ja du baax waaye nag lam yàq bu dee du fatiha moom wàññiwul dara am ñu ne bu fekkee yàq bu soppi na maanaama lay yàq julli ga waaye ni ko soppul maanaama dara nekku ca am ñu ne julli gi yàq daal njàng ma dañ ko sib doom am ñu ne nag far dagan na ñu wax yu bare bari waaye jàppal ci gën a wóor mooy lii mu wax mooy ngay julli di yàq njàng ma bu fekkee ne tëyu ko julli ga wër na bu fekkee moo ko tey nag moom mu yàqu mu des nag ndax sañ ngaa fekk koo xam ne bu dee julli day jàng di yàq mu jiite la am sañoo ko su fekkee ne mën nga am keneen koo xam ne du yàq doo sañ dem ci ka yàq mu lay jiite soo amee keneen koo xam ne du yàq nga wàcc ko ñëw ci kii yàq itam danga am bàkkaar ci la nga def dana tey bu la jiitee ba noppi ñu ne sa julli baax na duñ la julloowaat su fekkoon ne it moom mi yàq rek moo fi nekk bu jiite la moom dara nekku ca waaye nag nga am keneen man ko fee bàyyi dem ca kooka nga yem ci moom bañ a jàll ca kooka da nga am bàkkaar ci la nga def doonte sax sa julli baax na koo xam ne bu dee jàng du mën a teqale araf yi dañ leen di waxe di wax maxaarijul xuruf su fekkee ne tële ko moo tax du ko def ndax làmmiñam day làmmiñu làkkat ci misaal moom daal di ko tële rek moo tax defu ko kon julli nga baax na kum jiite itam baax le nga su fekkee nag mën na ko daa tàyyeel ba du ko def julli nga du baax ñàkk a tàggale araf yooyu nag ci wax yi nii day soppi lool maanaa yi fi tollu fala takun min al qaanitiin bul bokk ci way naaguña yërmande yàlla xam ne foofu taa moo fi nekk di xarfu ittibaaq dana wuteeg taa rek li nga miin muy ñaari tomb nga xam ne day weef foofu boo ko jàngee fala takun min al qaanitiin rek noonu day mel ni bul bokk ci way jaamu ñu yàlla bul bokk ci way topp ñu yàlla ñu wute lool prix wa amma saa'ila fala tanhar saa'ila sin su wow la di woyof soo ko jàngee faa muy sadd mu daal di firi aji song aji song lay daal di firi bàyyi ko ci saala yasoolu bokkut ak saala yasalu ba tax ñàkk a tàggale araf yooyu moom day soppi lool baat yi waaye nag fekk ne kooku da koo tële jéem na ko jàng itam taxul mën ko xëy na aw làmmiñam day làmmiñu làkk rek moo ca feeñ moom ci boppam kon am njàngam baax na ku ñëw mu jiite itam dara nekku ca muy koy yàq muy ci ñàkk raajal araf yi ci bu dee tudd ñoo yemoon ndegam moo ko tey rek mu mënoon na koo bañ a def julli ga day yàqu te ku roy ci moom itam mu jiite la doo baaxle ñàkk mën a ràññeele araf wu ne fañ koy waxeek moroom ma ci xeetu yàq la bokk waaye nag noonu mu ràññi ko nga xam ne soo ko dul def boo tuddee baat bi mën naa am bi max naa moo xam ne dana wute lool ak mañ ci jublu woon loolu moo tax mu ràññil ko mel ne daa bokkul ci xeetu yàq te fekk na moom it xeetu yàq rek la bu dee julli farata ilimaan ja faaw daa war a kàllase ndegam ka muy jiite ku kàllase la wala bu jaxasoo it am na ay kàllaf ndax bu dee gone julli gone daa mel ne naafi la bu jiitee mu kàllaf ci farata moom gone mu kàllaf ma du baaxle gone mënta jiite mag ci farata bu dee naafila nag dañuy aaye ku song def ko waaye buñ ko xasee def itam ñu jàpp ne wér na mel na jamono ñu tolloo ci koor gi ñu gis rek gone koo xam ne mokkal na alxuraan daal di koy jiital ca naafila ga te ñamuy jiite te ay kàllaf mbaa am na ci ñu kàllafe dañuy aaye ku ko def téye nag buñ ko defee ba àggal ñu jàpp ne la ñu def wér na kon ci gàttal da ngay takk ne gone jiite mag jullit farata aaye nañ ko te su boobaa mag ma julleem du baax faaw day julliwaat gone jiite mag nag ci naafi la aaye nañ ko sañeesu ko waaye buñ ko defee itam du tee mag ma naafilam baax na bu fekkee ne day julli jumaa sart nga sartoon ci ilimaan da nga cay dolli ñaar benn ba mooy na ilimaan ja doon gor ndax ba ñuy teqale gor ak jaam jaam julli jumaa waru ko woon gor ndegam nag julli jumaa ga waru ko du ca mën a jiite ba tey bu dee julli jumaa nga boole ci kay jiite dëkk fa mbaamu yéene faa sax lu tolloog ñeenti fan ba julli jumaa ga war ko bu fekkee dafa ñëw rek tukki si ba te yéene faa sax ñeenti fan julli jumaa ga du ko war bu ko warut nag du ko mën a jiite koo xam ne pas pasam ci lislaam dafa defee sell melul nañ ko taamoo ñett la koo xam ne la mu fas jàpp nañ ne ak kéefër la kooku moom ku mu jiite day mel ni ab yéefër moo la jiite rek sa julli du baax mel na ñuy wax naa yàlla boo boole lépp xam na ko waaye nag booy teqale benn ak benn moom xamu ko lépp daal la xamandoo waaye booy teqale benn benn yi moom du ko xam loolu dañ jàpp ne pas pasu kéefër la ku mel noonu kum jiite su julli du baax koo xam ne it la mu fas pas pasu biddaa la waaye dafa woyof jàpp ñu ne lu rëy la mel ne ñu wax ni alimaamu aliyu moo gën abu bakar ak omar ak usmaan ci sunna dañu jàpp ne abu bakar moo gën omar topp ca usmaan topp ca ku gën la aliyu ci kaw ñooñu nag ku jàpp loolu fase noonu pas pasam rafetut waaye nag loolu taxul mu diis kum jiite itam du jar ngay baamu ci waxtu wa julli ga baax na duñ ca wax dara mu des nag li diggante bi ki nga xam ne buñ dee seet na mu fase ci lislaam dañ caa woote ñuy wax ne ak kéefër la ñeene déedéet agul ci ak kéefër mel ne jamono yi a imaamu Aliyu am nañ jàppe woon Aliyu ak yéefër jàppe itam Muhaawiya man xeex ak moom ab yéefër ci kaw jàpp ne Aliyu mu nekkoon ci dëgg wërtoon a nangu kenn di àtte digganteem ak Muhaawiya kan moo ci am dëgg ci ñoom ñaar ndax wér na moom moo nekkoon ca dëgg ga leen kon Aliyu ak yéefar la ndax nam du nangu ku àtte digganteem ak Muhaawiya Muhaawiya itam ak yéefar la ci kaw ñàkk im ñàkk topp Aliyu ba wëlbati koy xeex ak moom jàpp ne daal bàkkaar moom doon tuuti ci ku def bàkkaar ku ne ab yéefar la pas-pas boobu pas-pas su biddaa bu gis la ci wet dañ caa wute nag ndax loolu dana tax kooka doon yéefar wala déet ku mel noonu nag ku mu jiite daañu bëgg nga baamu ca waxtu wa da ngay jëkk wax ni sax ku amee pas-pas bu mel noonu dañuy aaye nga xam ko ba noppi dem bu lay jiite nga xam ne yaa ko tey loolu lu araam la ci wax ji gën a wóor waaye nag ku soog def ko it dañuy wax rek nga baamu ci waxtu wa duñ ne nga baamu faawu faawu koo xam ne dana di mooy yàlla waaye mooy ga yàlla ajuwul ci julli ga ni ki danay naan sàngara mbaa muy sàcc mbaa leneen daal ci bàkkaar yu mag yi waaye julli ga moom ak caay-caayam jëmu ca kooku sib nañ mu jiite teewul nag bu jiite itam julli ga baax wax ji gën a wóor mooy kooku bu jiitee jiite ga baax na tam jiite sax duñ ko ne baaxul ci waxtu wa luñ gën a taamu nag mooy ilimaan ju maandu joo xam ne du def genn xeetu caay-caay ci yooyu loolu nag wute naag bu caay-caay ga jëmoon ci jëmmi julli ga mel ne bu dee julli da koy tey xam ne nangam sunna la woyofal julli tax mu bañ koo def wala sax ak rëy feeñ ca ndax doon na xëccoo jiite te la taxoon muy xëccoo wàllu daraja rek la du alal di ñuy fay kay jiite mbaa dara daraja ji rek tax lu na xëccoo jiite ku mel ne kooku kum jiite rek sa julli yàqu ndax julli dañu koo def ngir toroxloo woyoflu kon nag bu àggee ci lañ bi di xëccoo jiite la ku mu jiite rek sa julli yàqu koo xam ne ab sàmm la bu taqoog jur ga di jaxasoog nit ñi di jaxasoog wattaax yi topp ga muy topp ci jur ga day feeñ ci jikkoom ak naqari deretam ak ñàkk a tàlleem moo tax bëgguñu bu jiite koo xam ne daa dëkk ca taax ya di jaxasoo nit ñi ba amee jikko ju rafet sàmm ba topp ci jur ga daal saxoo gaa topp ci jur ga day feeñ ci jikkoom te dañoo taamu ilimaan rafet jikko moo tax bëgguñu sàmm boobu jiite waa taax ya nga xamee ne yàgg nañoo gis kanami nit ñu baax ñi ba amee jikko ju rafet jikkoy yaaram doonte sax sàmm boobee moo dàq jàng itam duñu taamu rek mu jiite ka dëkk taax buñ nekk dëkk taax nag jubluñ ci ku dëkkee ca capital ba mbaa fu mel ne capital koo xam ne rek dana di jaxasoog mbooloo mi di gis ñu baax ñi di amee ci ñoom ak mbaax di xam mbañum rus di xam la wuuteeg mbañum rus di ko sori rek kooku waa taax la teewul ba tey am na ñoo xam ne ña ngay topp ca jurga ak ca àll ba jurga ak àll ba rek lañu gis ba tey kooku nag kon lu mën a mën a jàng rek daañu sib mu jiite koo xam ne dafa rëkk ca taax ya mbaa muy jaxasoog waa taax ya ba mel ne waa taax ya koo xam ne dafa amee njokkalem saw wala xayta wala gelawal maanaam daal koo xam ne am na wéradi ba danay julliwaale sobe ba am na loo xam ne bu doon ci wér ñu ne njàppam toj na waaye nag li mu wéradee tax ñu ne njàppam tojut ku mel ne kooku sib nañ muy jiite keneen koo xam ne loola dalu ko ne sax mën naa jiite ku mel ne moom ba tey ku amee ay góom moo xam taab la wala leneen sib nañu muy jiite koo xam ne amul ay góom dara dalu ko dañoo bëgg rek ilimaan na mu gën a mate ci biir ak bitti moo tax bu kooku amee góom duñu taamu mu jiite ka amuli góom buñ bokkee amee góom nag ku ne mën naa jiite moroom ma kon ci gàttal mën nga ne képp koo xam ne amee na sobe soo xam ne bu dee ci moom du sobe ndax jéggal nañ ko ko mën na koo julliwaale daal di sib mu jiite koo xam ne amewul sobe soosee ku mel ne moom nag mën na koo jiite koo xam ne xarafut mooy ab aat sib nañ koo xam ne xarafut ñu def ko ilimaan moo xam day nekk raatib saxoo jiite foofu wala day gindi rek lu mu ci mën doon daal ndegam xaraful rek sib nañ mu jiite maanaam kuñ xamul ba xam commande la wala commanduwul la sib nañu mu jiite dañu wax ne itam koo xam ne dañoo xamul askanam te la tax xamuñu ko mooy dañ koo foroon rek xëy na am na baay xëy na amul baay dañ koo for rek di ko yar di ko toppatoo ba mu toll noonu waaye xamuñu ci askanam lu wóor kooku sib nañ ñu di ko jiital ndi sax koo xam ne day ab doxandéem bu ñëw foofa buñ gisee ci moom màndargam ak mbaax akuk mat ilimaan duñ jekki-jekki ñaaw ci moom njort dañu jàpp ne am na askan wu wér ñàkk gaa xam askanam du ko tee mën a jiite tamit nee nañ wax ji gën a wér mooy doomi njaaloo nga xam ne amul bàyyi ci yoon ak ku mel ne kooku ñu for rek xamuñu koy bàyyam ñu doon ilimaa ñu raat it lañ ñu sib waaye gin rek di jiite nda kenn faru leen ilimaa ñu raat it moom sibuñu ko ca di jëkk daana am ku am jaam daal di koy tàpp ni ñu tàppee xarak béyëb li mel noonu ka ñu xas tàpp nag ñu def ko ilimaa ñu raat it sib nañu ko ndax day tax rek nit ñi di ko jëw di ca bakkaaru di wax naa seen ilimaan ji dañu ko tàpp wa ma boo nin dañ koy firee ku ñu tuumaal waaye sore nag max naa mi bee too piri mi dana la sànk ndax ma boon mooy rek ngóorum jigéen koo xam ne day nur nur lu jigéen ca na muy waxee na muy doxee kooku mooy ma boon kooku nag bu fekkee du ko jëfee kooku nag bu fekkee du ko jëfee day mu murmu jigéen rekk ci waxin waag doxin wa siit na ñu def ko ilimaa ñi raatut bu fekkee ne nag mboon jigéen nga da ko doon jëfe ci mooy kon loolu bàkkaar bu mag a mag la day dellu ci la nga waxoon ci kuy naan sàngara wala muy njaaloo wala muy sàcc mbaa beneen bàkkaar mag boo xam ne ajuwul ci julli ga dañoo waxoon ne ku mel noonu ak jiiteem dañu koy sib moo xam mu doon ilimaani raatib moo xam day faral la jiite waaye kenn solu ko ilimaani raatib bu mu ci mën doon sib nañ ak jiiteem ki nga xam ne nag day nur nurlu jigéen rek ci wax yin mbaa jëf yin lañu sib rek moo ñu def ko ilimaani raatib waaye bu fekkee defuñu ko raatib dafa jiite rek ci tombe mbaa léeg-léeg kon duñ ko sib bu doon nag ilimaani raatib moom moom la ñuy sib doomu njaaloo koo xam ne doomu yoon ñu def ko ilimaani raatib moom itam sib nañ ko jamono yi amee teqale gor ak jaam ñu fekk jaam ñu koy fal ilimaani raatib ci julli goo xam ne farata la wala julli goo xam ne sunna la nit julli korite mbaa tabaski sib nañu ko du teemu baax nag waaye sib nañu def ko ilimaani raatib nga xam ne kon yooyu jamono jaam ak jiiteem mën nga koo def ñetti xaaj am na jiiteem goo xam ne dafa araam te mooy bu jiite ci jumaa ndax moom jumaa waru ko woon am na ak jiitam gu ñu sit mooy dana julli farata mbaa julli sunna ñu def ko ci muy ilimaani raatib ak nag ak jiitam goo xam ne araamut si buñu ko mooy mu jiite ci geneen farata goo xam ne defuñu ko ca ilimaani raatib daa tombe rek wala ñu def ko ilimaani raatib ci loo xam ne aggu sax ci sunna niki naafilay ramadaan boo demee ca jumaa ja ak ci yenn jàkk yi nga xam di jumaa dañuy wax ay keno muy ay poto dañu leen di rangale poto nekk fee am bu toll moom seen diggante nag am lu fa nekk loo xam ne fa la ñuy teg daal yeeg yu mel noonu diggante kenn gën a moroom nag sib nañ nga jullee fa ba tey sa ilimaan nga dem ba ca kanamam nga defa jullee sib nañ ko li ngay nag foofa daa xat moo tax nga nekk ca kanamam dañu taamoon daal mooy bu dee yaag moom dong nga féete ko càmmooñ ngeen xaw a làng te nga bàyyi mu jiitu la tuuti bu dee ilimaan nag lu mat ñaari góor mbaalu ko ëpp ilimaan nekk ci kanam ñoo ñeeni jiite rang ci gannaawam léegi nag bokkee lay jiite nga nekk ci kanamam te mu lay jiite ci bisu ngànt da nga koy coobarewu rek loolu sib nañ ko gaal yi booba jamono daan def lu mel ne étage mu ne nag nga nekk ci étage bi féete suuf wala nga ne nga nekk ci néeg bi féete suuf ka lay jiite moom nekk ca néeg ca kaw sib nañ ko ndax li ci ëpp doonoon takk ay mbiram bu baax a baax nda bu fekkoon ne sax yow mi nga xam ne yow la ñuy jiite yaa féete ci kaw ilimaan ji féete ci suuf xëy na kon ngay gën a mën a jekku gën a mën a takk la muy def su boobaa kon duñ ko sib waaye nag yow mi maamoom nga féete suuf ca néeg ba ca suuf ca gaal ga moom nag mu nekk ca néeg ba ca kaw sib nañ ko dafa am ba mu tudd abu xubay si foofee mu ne leen du ilimaan jàng ca jàkk ji ci kaaba ga yow nag nga nekk ca kaw dajooyee di raw ci moom sib nañ ko ndax rek jàpp ne doo mën a takk ay mbiram bu baax a baax genn góor rek di julli ay jigéen wër ko ak safaan ba genn jigéen rek di julli ay góor wër ko loolu sib nañ ko bu ñu nee sax genn góor di julli ay jigéen wër ko wala genn jigéen di julli ay góor wër ko dañoo waxi noonu rek waaye bu fekkoon ne góor ga julli ay jigéen ko féete ndeyjoor ay jigéen ko féete càmmooñ wala jigéen jee julli ay góor a ko féete ndeyjoor ay góor féete ko càmmooñ it du tee ñu sib ko ndax li ci ëpp rek bu dee góor gaa bu dee jigéen jaa teewlu julli ga bañ a bàyyi xel ñooñu góor lu jafe lay doon doonte sax ñooñu dañ di ay araamanteem it duñ ca seet loola daañu ko sib moytu ga moo gën mën nañoo wax ni sax képp kuy julli ku ne sopp nañ mu wut làmbaay moo xam kaala la moo xam ab sarbet la gàll ko ci ay mbaggam waaye nag nun ni nga xam ne moom la ñuy soloo sol bu mag mbaa bu mu ndaw mbaa dara moom col gu rafet la lañu siboon dëgg-dëgg mooy di julli sàng na aw rajo waaye kaw mbagg ya ak fakóor tegu ca dara waaye dan ngaa gàttal rek ne muy kenn kuy julli muy limaan muy maamoom sopp nañ mu def làmbaay googu ilimaan ci boppam nag di jiite jàkk ba noppi ba ñu wut làmbaay googu moom la ñu sib ilimaan jey jiite bu jiitee ba sëlmal rek bëgg ñu mu yàggaat foofee mu doon jiitee bu bëggee naafila dañoo bëgg mu jóg foofa door a naafila waaye nag fa taxawoon di jiite mu taxaw fay naafila sim nañ ko sim nañ itam bu sëlmal ba àggal toog nam tooge woon rek bala wëlbatiku mel ne ba mu sëlmal gutoon dañoo bëgg bu sëlmalee mu soppi aw tooginam mën naa jublu wetuk ndajoor ba noppi nag jëmale kanamam ci nit ñi waaye daal nam tooge woon di julli bu sëlmal tooge noonu rek bañ caa soppi dara sib nañ ko jàkka jooja wala barab boobu bu ko fi am ilimaani raatib koo xam ne moom lañ féetale bu di fa jiite ñaar wala ëpp ñaar mooy jiite ko daal di julli te moom ñëwagut loolu sib nañ ko de sax bu fa ilimaan di nekkoon moom day araam ñaar mbaa lu ëpp ñaar ñëw daal fa taxawal julli te ilimaan nekk fa bu ilimaan ni raatib ji jiitee ba àggal itam danañ sib ñeneen di fa julleeti di def mbooloo li gën mooy du mat ñaar mbaa lu ko ëpp su ñëwee rek ñu génn ci biti kenn ci ñoom jiite ñu am julli mbooloo moo gën ndax bu jullee ci biir jàkka ja moom faaw dañuy kenn kennoo duñu am ngëneelu mbooloo mbaa buñ bëggee def mbooloo rek ñu sib ko ne doonte moo ca may woon ndigalit du tee rek ñu sib ko ilimaa ñi raatib ji foofee nga xam ne fa lañ ko féetale mu baaxoo faa jiite su fekkee ne moom ca waxtoom daan ñëw rek ca la ñëw mbaa boog bu ko tardé itam bëréet bu dikk nag fekk mbooloo ma julli maanaam barab ba am ko fa jiite ñu julli julli mbooloo te moom joxewu ci woon ndigal kon bu dikkee rek mën naa daal di jiite waat mbooloo ca barab ba mbooloo ndax moom barab ba barabam la ñu ko jiitu def mbooloo julli te ñëwagut ñoo tooñ te waxoon nañ ne loolu sib nañ ko su fekkoon ne nag moom moo ci maye woon ndigal ne leen julli leen mbaa boog dafa tardé lool ñu xaar ko xaar ñëwut ba tax am ku jiite ñu def mbooloo ca barabam boobee kon bu dikkee daañu sit mu di fa jiitewaat mbooloo ndax ndegam moo ca maye woon ndigal ne leen julli leen dañ def mbooloo ba àggal mu door a ñëw mbaa dafay wax loolu nga xam ne wax doon ñëwee daa sorek wam daan ñëwee ba tax mbooloo mu julli kon daañu sit mu defa jiitewaat mbooloo mu ne bu fekkoon ne ilimaan yi raatib ji dafa jiite mbooloo ba àggal gannaaw ba nag ñaar mbaa lépp ñaar dikk kon léegi la gën mooy ñu génn ca bitti kenn ci ñoom jiite ñu am gëneelu mbooloo waaye buñ jullee ci di jàkka ja moom faaw dañuy kenn kennoo buñ bëgg def mbooloo rek ñu sib ko te mbooloo julli mi ngi tàmbalee ci ñaar loolu moo tax ñu wax lu mat ñaar mbaa lu ko ëpp ba mu des nag ñetti jàkk yi nga xam ne kenn képp jullee fa mu ëpp tuyaaba jullee feneen ci mbooloo muy jàkka ji ci kaaba ga ak jàkka yi yonente bi ci madina ak boo ci maqadis ndegam jullit mbooloo gi moom bari tuyaaba ga rek tax ñu koy dabu te yetti jàkk yi moom kenn rek julli fa moom dong bu ëpp tuyaaba jullee feneen ci mbooloo kon ñaar wala lépp ñaar bu ñu duggoon ci kenn ci jàkk yooyu itam fekk ilimaan yi raatib ji julli ba sëlmal dañ leen di wax na kenn ku ne beru julli julli boppam ndax kenn ku ne beru julli julli boppam ci yetti jàkk yi bu ëpp tuyaaba génn jàkk yi di def mbooloo gumba mën naa jiite ndega mat na ilimaan waaye léegi nag bu fekkee ne mook ay gis ñu yemoo ci ak mën a jàng ak maandoog ci qualité yépp kon kay gis jiite mooy gën tax day mel ne mooy gën a xam xibla gën a mën a jàkkaarloo xibla buñ ko mooy ci genn wet ba tey daa mel ne kii gis mooy gën a mën a moytu xeetu sobe waaye daal dañu wone rek ne doon gumba rek téewta mat ilimaan ba tey ñàkk a bokk gis-gis ci fiq ni ki kee nekk ci ngirum Maalik kee nekk ci ngirum Shafii te léeg-léeg ñu wute lool ci yenn masala yi du ca dara te tey kenn ku ci ne mën naa jiite moroom ma kon ci gàttal rek wute ay gis-gis ci fiq rek du tee ku ci ne ci ñoom mën a jiite moroom ma koo xam ne dafa dotom yenn araf yi mënu koo génne fañ koy waxe maanaam mënta wax yenn araf yi fañ koy waxe ne bu wax xaa muy xaalonk dama ne koy wax alkudóor wala buy tudd laa bu ko mën a tudd laam lay tudd ak yu demee noonu kooku dafa dotam waaye ak jiiteem wàññiwul dara koo xam daa jàddoon yoon niki naan sàngara wala njaaloo ba ñu jëtoon ko te gis ne tuub na tuub gu sell kon kooku mën naa jiite di wax ne ak jiiteem sib nañ ko mbaa dara tuuña tuuña mooy koo xam ne ab sawukaayam dafa tuuti ba nga xam ne ni mënta jotee jigéen nga xam ne kon daa xaw a muru jigéen dañu bañ nga jàpp ne ni jigéen mel nga xam ne mënta jiite fii sawukaay mel noonu ba tey day tax du mën a jiite ñu xam la ne moom ak jiiteem dara sikku ca mën naa jiite bu baax koo xam ne ay cëram daa am bu ca dagg mel ne loxoom mbaa tànkam wala boog am cëram bu làggi du ca dara te mën naa jiite daa mel nag ka gën a mat nga xam ne manqué wul benn cër làggiwut ci kenn wet moom lañ gën a taamu ndax ilmaan moom lu mu gën a mat rek gën a baax koo xam ne itam amee na ngaana waaye ngaana ga amul solo du wàll kenn mën naa jiite waaye nag bu xasee amee ngaana bu wàlle moom dañ koy bex di ko faj bu wér dañuy jëlale jiite waaye du nangu sax mu jaxasoog ñeneen di leen wàll gone jiite moroom ma dara nekku ca moo xam ci farata la moo xam ci naafila la lañuy suwan kay te nanguwuñ ko mooy gone jiite mag ci julli farata boole ca bu dee ci naafila itam mel ne jamono koor gi ñu toll dañuy waxoon ni sañee su ko maanaam dañ nangu gone jiite ca mag waaye du tee nag buñ ko defee ba àggal ñu jàpp ne lañ def wér na baax na du aajowoo defaat